ñi ngay mat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkul waat ak comme ni leen koy toppalee lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi ni leen ko toppal rawatina nag fi nga xam ne fi la ñu jógee buñ ko waxee muy tribunal bu Géejawaay nga xam ne sunu nawle sunu mbokk sunu xarit moom lañ fa téye muy Lac de ci information yi nag am na lu ñu ci jot a dégg waaye nag dañuy toog ki nga xam ne mooy sunu invité bu ñu ko waxee muy du Anta sans frontière Modou Anta bu Lambaay Modou Anta bu ñiibi Modou Anta boo xam te bu ma xam la nag ah Modou maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> Maguette Ndiaye maa lay bëggee di sant yàlla bu baax di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min xaw xaw qawli ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu sama waa dëkk waa Njeng waa Kër Abdou waa Thialène waa Pocé Mbusa Sanc Mbusa Ndiir di nuyu waa Saalum bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la nuyu di nuyu guy gi di nuyu gaa yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. li may wax mooy tiis boo xam te ni moo dal ci axlu làmb gépp dal ci ñëpp muy Lac de Guiers ci tiis bi bi nga ko déggee. waaw waaw waaw déception la ci ñëpp déception la ci ñëpp ko parce que affaire yi moom man yaakaar naa ne bari na ci loo xamante bi nii xamoon naa avant mais. xam nga rek réew mi toll na foo xamante bi nii lépp looy wax si doomu jàmbur wala lépp looy wax si gor rek xool ko ko bu baax bu buñ ko waxoon ci sa yaay wala sa papa wala sa frère mm-hmm. parce que man sànq dama nekk nit boo xamante bi nii makan ñu bëree bëri duñ ma bëgg parce que <laughs> dëggu gi tamit mm-hmm. da cee tax mm-hmm. parce que yàlla dogal na man lu may wax du ma ci xool sans ni pool damay xool li nga xamante bi nii mooy dëgg mooy réalité ma teg ko si table bi du ma ci xaar weccet du ma ci xaar jaajëf lu ma ci am retour nag baax na amul problème quoi Mhm. parce que ci veeyu koor gi mhm. dama toog sama kër man ak sama soxna mu jekk saa yi benn gayaan woon ma alu moo daante ma ne ko waa mhm. mu ne ma man benn téer laa bu nekk Kéjawaay sa pense ma juum ñun ñoo am ak problème la de dama bëggoon nga jël ma interview pour ñu wax ci affaire yi parce que boobu ba tey dañu seetaan ma ne ko ah sëñ bi nga jéggal ma de waaye loolu de wax dëgg yàlla mënuma ko parce que maa ngi xalaat. xam nga nag gars yi bëri dañ naan jàng ak nangam nangam mais jàng yeewu da koo gën wala xam. Mm-hmm. après ci laa ne lool moom wax dëgg yàlla du mën a nekk. Mm-hmm. moo tax wax day tungoom seede. Mm-hmm. waxaat naa ko sama émission ak làmbaloog. tey yàlla mi dara tawut. ki ma doon woo mosuma koo gis tey dawal na ba ci samay tànk ci buntu terminal bi. ne ma Modou Anta ma ne ko waaw ça ñu jaamante noonu ma bëgg a dem mu téye sama loxo ne ma man maa la doon woo man maay téyeer bi. ci problème bi laa bokk. te Modou yàlla xam na ne noonu laa ci sonne. def naa médiation ba tas ci ñi ma ko bokkal pour ñu bàyyi parce que man mujj naa retiré wu. Hmm. kon nga xam ne kooku amul xol ku baax la. amul xol hmm. ci lan xamante ñu sansante ay numéro après ma dem. Hmm. beneen bi ci topp veille combat Papa Boy Djiné bi. ak Jokkel. def naa interview man ak ma Dia ci biir ba génn. sama caméraman Ibrahima mën na ma seede. am gars yu dawal moto ba taxaw samay tànk ne ma Modou ma ne ko mu ne dañoo bëggoon nga jël ñu interview. ñun ñoo amoon ma ne leen ah ñu ne ma waaw ma ne laa loolu mënuma ko de mhm. teguñu ci baat ñu taalaat seen moto dem mhm. xam nga dama leen koy nangul parce que li tax dama leen koy nangul gaa mhm. am na lu leen metti man xaw ma ba xam ñoom ñoo am ak problème mais liñ ma wax man loolu laa xam léegi nag ñoom ñu dem mhm. parce que man nag magan kaay ma man duma ma xeexu kaayu kenn ak ku man di doon mhm. donte ñoon tamit bëgguñu xeex dañoo am lu leen métti ñu bëgg fu ñu ko waxee mhm. pour wax ji gars yi mën a comprendre quoi man duma nekk di ragg booy yi wala may ragg la dëgër parce que ñoom ñëpp ci dëkk bi la ñu dëkk comprendre mais dama doon xalaat pour ma daaneel rek bàyyi laa kàddu gi tey bu fekkee ne loolu am na ma dem jëli téer bi jëli copé yooyu yëpp problème bi bu amee makan ban position laay taxawee moo tax àdduna nit lu metti metti ak tey lu la affaire yi wër wër dalal sa xel te ngay xalaat te xam ne ñu ñëpp ay frère lañ quoi tey est-ce que njortoon nga ne Lac de loolu la doon liggéey day doon trafiquer visa di yóbbu ay nit yow njortoon nga ko ah waliyaasu billaahi di profité tamit di wax ne gars yi suba incha allah la départ bi fii parce que tamit boobu ba tey gars yaa ngi may woo aw ma temps pour wuyu téléphone ñi bëgg a dem Kaolack ci làmb Duudu Saane bi ak Ndiaga Doole jàkkaarloo Lac Rose ak ki nga xam ne mooy Jackson suba incha allah fii la ñuy départ bis bi nag 9h00 lay départ 9 bu jotee. Moodu Anta bu ñëwul sax da ko fi bàyyi dem yoonam. Mhm. incha allah rabbi euh, Makan jëlal na leen hôtel. Mhm. jëlal na leen lépp lu ci war fayal leen bis climatisé aller retour. Mhm. caméraman la ak reporter. site yi ñu jotee bind xam nañ 7 na leen fi fekk 9h00 ñu départ dem ko non Makan loolu moom wax dëgg yàlla mosuma ko xam la dëggeer bëre rek laa ko xamee quoi. bi mbir mi bett na waaw waaw parce que dina ma bett kay parce que man nag affaire yi. Mhm. amee woo naa Alioune Seye numéro 2 ne ko jaas mhm. affaire yi nan la mujjee mhm. mu ne ma noo Modou garaawul affaire yi ñu koy lijjanti ma ne ko ah. est-ce que mu ne ma waa ñu ngi koy lijjanti dinañ ko bàyyi. ma ñëw ne làmbaloog. kaay comme yow yàlla may na la image. nit ñi xam nañ la kaay ñu def benn interview bu ñu defee benn interview. donte amuñu accordu waa Kër la de guerre mais nañ ko def te yàlla tax parce que kenn ku nekk si li ngay liggéey. ci ngay dimbalee sa morom. Mhm. mais kenn ku nekk li ngay liggéey si ngay loree sa morom. Mhm. ma ne ko kaa ñu def benn interview boo xamante bi nit ñi dinañ ci jot pour ni ñi mën a ñëw sot sotloo ko que mhm. jàngoro. wala feebar wala nattu lu mu si mën di doon dañ koy weer. pour mu wér. boo gisee nag Alioune bi mu waxee loolu. gaa moom la dageer frère am la xam nga. tey jaakaar yaakaar na ne affaire yi du demee nii. mais lu mu si mën di doon dama ne la. waa lamb bu ñu sàggan man ak làmb loolu la ñu waxante woon. nitu làmb nag moo mën a moo man dernier moment. Mhm. dem ba ne fi mu ne nii affaire yi këtt na na joon ku nekk doo ko jóg. waxan naa leen ko ne leen sa waay nan jóg bu xaar na gis na la dëgër. Mhm. yàlla may na ko kersa goo xamante bi ne ak sutura du woo kenn naa koy jàpp ci walla mhm. nangam. nit nag yow yaay goree. du ko see gerew gore wala goree di mais nit. tey yow yaay xam fi sa nawle toll. nga ñëw participer. te promoteurs yi nag mënuma la mënuma leen conseil parce que ñoom ñëpp ñoo ma gën a jàng mhm. maa ngi leen di ñaan 4 avril 2021 la Lac de Guiers mujj bëre mhm, moo ko Eumeu Sène boobu ba tey dogal na promoteur yaa ngi koy démarché jubóowuñu mhm. mais ci nii nii nii problème bi am bañ defeere ko rëbës ko ci kenn jox avance ci problème bi ku ko ci jox avance ku nekk tama du la buum parce Sénégal dañu mën a yàq gor. Mhm. bu boobaa dinañ taxaw ne fii la fi nekk 4 avril 2021 muy jooy combat kenn joxu ko. Mhm. mu dem ba am problème ngeen koy santage di ko jox combat. Mhm. conseil la de. man dégg naa sax am na ñu ko doon proposé ay combat gis naa ko dégg naa ko. ah waaw bëriwaat na feeg Siteu. waaw waaw novembre bii ñu génn. comprendre ba mu bëreeg nag ba tey. gars yi ñi ngi démarché mais dara sottiwul mhm. mais loolu daal laay conseil promoteurs yi te képp koo xamante bi ñi ngi yem nag ñi ngi ñaan nag projet bi bu taxawee lundi mhm. bu dee lundi férié bu taxawee mardi mhm. ñi ñaan ñu bàyyi ko définitivement pas liberté liberté provisoire ñu may ko liberté totale comprendre mais bu loolu amut muy ndog ndog di lu ñu yaakaarul ne kenn ku nekk yëkkati sa ñàkk kenn ku ne xam nga kër la dageer nga dem fa participer parce que la dageer li ko dal mën na ma ne yàlla na yeex parce que xam nga tax yàlla suñu borom ci boppam bu bindee jaam ni mu ko waxee ci wërsëg noonu la ko waxee ci jafe-jafe wa maa min daabatin fil ardi illaa alallaahi risquha wërsëgu jaam bi yàlla te yow mi nga xam ne dund nga wërsëg bii bind nañ ko sa jëbi tey bu fekkee ne yooyu yëpp am na kenn ku nekk na nga jël ci sa ñaq bul ci xeeb dara dem jox ko keneen mooy Fatma Dia Fatma Dia ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax sonn na xam na ci lu bëri lim la ci mën a wax kenn mënu ko cee wax mm-hmm. ñuy jaajëfal makan mee nga aussi tamit ci ses bi mu def yëkkati un million cinq cent ma war a wax mais teraanga dañ koy weer teg kon nag Mm-hmm. bii baa ngi noonu gaa yi. Sadio Mané tamit dégg dégg nañ ko ah. mu war a fay somme bi na après waaw waaw xam nga somme bi nag maa ngi maa ngi dégg gars yi commencé woon li ñu commencé woon quinze millions vingt cinq millions. Mm-hmm. trente millions. Mm-hmm. mais man li ma mujjee jot comme information. loolu laa mujjee jot. cinquante neuf millions laa dégg. cinquante loolu laa dégg. la a fay ok waaw. ñu di gis ne Sadio Mané joxe na dix millions te daa mel ni bi Sadio Mané joxe dix millions critiques yi dafa gën a bari. bi ko ñooñu déggee. waaw waaw parce que xam li ma la wax rek tey nee naa la problème bu amee. Mhm. tey gars yi dañuy xaar rek. Mhm. ñu ne Modou Anta joxe na quinze millions micro yi tiim moom ma wax ko. Mhm. am ñeneen ñuy ñëw di raaxaloo. naan ci laa bokk. mais li may ñaan nag mooy. nit ñi ak kum si man di doon nañ gore rek. te xalaat ne kenn ku nekk. di nga géganoo sa ndejoor bii makan lu mm-hmm. coow li bëri bëri parce que bis boobu moom mënul ñàkk mm-hmm. suñ loxo yee yëpp day wax mm-hmm. parce que boo weddee man moom samay wax jalu muus la al yawma naqtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kaanu yaksibun alxuraan a ko wax nit nag bu fekkee ne doo xalaat loolu bu la neexee triandel na nit am problème nga ñëw wekku na ci laa bokk am ñeneen ñeneen ñoo xamante bi ni tey man Modou Anta ma ñëw ñëw ci yow ne la la dëggee daa am problème damaa bëggoon nga jàppale ko nga yëkkati cent mille jox ma ma dem jox Fatma Dia cinquante mille mm-hmm. gars yi nañ xam ne lii du projet mhm. nañ xam ne lii du marché mhm. gore kenn ku ci nekk luñ la ci lu nekk nga teg ko ci seeni loxo mhm. parce que ni ngeen ko ko defalee tey ëllëg mën nañ koo defal Modou Anta mën nañ koo defal beneen mbër mën nañ ko parce que mbër yàgg na fi am problème ñu jàppale ko promoteur yàgg na fi am problème ñu jàppale ko nitu làmb yàgg na fi am problème ñu jàpp ko lii du gàcce du dara du gàcce du dara destin de jëla doo ko fente comprendre nga lii nii bu mu ci ruus jàpp ne ay kersa la wala dañ ko humilier non non non nattu la comprendre mhm. am na ci ñoo xamante bi nii Ndiouga Kébé mhm. ma ca Touba mhm. comprendre nga Djili Mbaye alaaji Gaston Mbeng ah, ah ñooñu buñ mën a ñëw ñëw fayaat bor dundaat dañuy fay bor dund mais est-ce que tamit ci Lac de Guiers lii mënoon na ci bañ a dugg ci ak tur bi mu am ci réew mi non xam nga yooyu moom matuma ci conseil mais dama ne la makkan du ma ne Lac de kese yow ak man mii tey ñi wax ci télé yii lu war a mat ñeenti personne di ñu seetaan nañu vigilant ba ci guy gee comme si man di doon parce nag yàqkat yi bëri de am na ñoo xam ne ay drago lañ wala ay pion yu ñu installé lañ mm-hmm. dañuy fexe ba ñëw effacé la mm-hmm. effacé bi mooy ñëw dañuy ñëw andi la plaignant bu dul jeex te bu ñuy ñëw ay xaalis bu bëri la ñuy yor mhm. nit mën naa ñëw woote ne soppe sax mhm. te fekk noonu la comprendre nga non si mbër tey mbër bu ci am vingt cin mille nga nga yëkkati cent mille may ko nga yëkkati deux cent mille may ko da lay taf ci boppam def la xarit mhm. moo tax nag nit xaalis buy ñëw ci yow ak homme affaire buy mën di ñëw ci yow nanga nga bu baax te sa image yaa ko moom bu la kenn jox dara vidéo la bu la kenn jox dara photo la muy ñu ñëpp si yem nañu yeewu bu baax ndog-ndog nag mënta ñàkk mais képp koo xam ne yaa ngi si télé di wax gars yi di la dégg nanga bàyyi xel te xam ne sa lu coow li bëri bëri am na ñoo xamante bi ni bëgguñu sa jàmm buñ sañoon tey laa la wax parce kaso ngay fanaane wala ca armeel yi mm-hmm. mm-hmm. mais ñu gis bi li yi ba leen gis gis ak Sa Thiès ak mbër yi nga xam ah ñëw na def na li ko war Sa ñëw na def na ko war ay ñoom fils de Balla gars yi bëri ñëw na mais du ñëpp mën a ñëw parce que tafaati nekku fi Eh, eh, mi ngi mi ngi mi ngi Côte d'Ivoire mm-hmm. Balla Gaye nekku fi mm-hmm. mi ngi INSEP si dellu na mm-hmm. am na ci ñoo xamante bi ni tey boo ñëw te sa loxo ñëw baax na tey eh, tafaatin man na bañ a ñëw ba pare loxoom jógu ci mi ngi woote mi ngi nemmeeku mi ngi def yëpp parce que tafaatin mi ngi ci liggéey kon mbër buñ fa gisul nañ ko comprendre naar am nga question euh, ñu gis ba li nga xamante ne mooy verdict daanu ñu gis beneen façon moo daanta Modou Anta boo xamante ne bu triste la mm-hmm. ñu laaj ko mun a samay tànk fi na dafa dam mm-hmm. mm-hmm. sa digganteeg Lac de Guiers tey lan ban xam nga euh, gars yi bëri dañuy wax man sa waay du ma du ma jinne du ma rab du ma dëmm du ma dara nit kese laa benn nit boo xamante bi nii nekk moo Modou Anta jaar daara jàng ba wàcc nekk taalibe suñu Aliou Diouf Lambaye ba pare nekk ca kër ga sët man naa ne sant moom ma tere tere nekk ab sëriñ parce que boo dee xool ci côté sama maam bi nga xam moo jur sama papa mhm. <laughs> tey man naa ne sëriñ la Diouf la sant te Dioufee ni ñëpp dégg nañ leen mhm. bu dee sama côté yaay mhm. famille Cheikh Moussa lañ kon yaakaar naa ne man sant moom ma teree nekk ab sëriñ mais dama ne la naar man awma xol <laughs> xol awma ko man ñu bëri man nag yàlla daa dogal tey ñi ma xamul rek man garaawul naa leen bàyyi ci vee bi rek am na si ñoo xamante bi nii gain da naan booy bi dafa arrogant booy bi satan la booy bi nangam mais garaawul mm-hmm. ñooñu ay noo comprendre lañ mm-hmm. mais man xam naa ne ku ma jege bëgg ma mm-hmm. coow li bëri na booy bi dafa goog dafa def nii nangam lu ñu wax garaawul sa waay man defeyaan rek moo ma dul bëgg tey bu fekkee ne fréquenté nga ma ba xam kan mooy Modou Anta wallaay lancim di nga ma bëgg am na ñoo xam dañ ma bañoon bu njëkk mais léegi bi ñu demee ba xam ma am na ñu may daje ci mbedd ñu may jox loxo naa may baal ma àq mhm. li may yaakaaran amul mhm. naar mhm. loolu passé na loolu erreur la woon ci moom non si erreur la ci moom erreur la ci man parce que bi mu mi ngi France xaw ma fan woote ci télé bi ne Moodu Anta na ma baal àq nangam nangam man xam nga parce que noonu laa mel man ku ma xam-xam sama yaay xam ne ñun amuñu xol buñ meree dañuy jooy buñ kontaanee dañuy jooy. Mhm. comprendre nga. Mhm. loolu nag ci famille nit bu amul xol rek amul xol quoi. Mhm. ana lan ngay tàggoo kàddu gu mucc. waa di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne gars yi nag nañ ko jàppale rek. nattu kese la. fii bëri na ñu fi nattu dal. mooy ñu sant Mbàkke ñu sant Buso ñu sant Si ñu sant Faal ñu sant Ñas bët bu set ngeen dégg seen doom yeeg seen nangam yi ñu ngi ci kaso yi. parce que kaso yi nag du pour mala. du pour dëmm du pour jinne du pour dara pour nit kese la. kaso yi ak kër yi. presque sorewuñu mhm. parce que kër yi pour nit ñi la kaso yi pour nit ñi la mhm. donc bi mu génnee si kaso bi dama ko fekk mbuur mu ne ma yow deel bëgge waa kaso bi gars yi dañ lay siyaar dañ lay seetaan bu baax ñu na teggee mhm. na ñoo ñu ngi ci kaso yi makan bi ñu fay dugg jànguñu baa jànguñu siin mban génnee wàcc nañ alxuraan mokkal nañ xam nga ak yeneen ak yeneen di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne gars yi lu affaire yi métti métti ak lu jàmm ji bëri bëri buñ ko fàtte nañ ko nekk def ko ci seen xel kenn ku si nekk sa kemtulaay kattan la nga mën nga yëkkati ko promoteur yi mas a bëreel yëpp supporters yi ko mas a seetaan si di amateurs yi di reporters yi nañ jóg média si affaire yi def médiation bu rëy a pour gars yi jàppale ko mu génnaat si jàmm jërëjëf